baax na résultat ngi nii ngi nii yàllaa leen moom kenn moomu leen ay doomu jàmbur lanu ñoom ñoo ko dix mille problème bëgg ko sa communication baaxul kooku kee mun si dara yow ndéygee su ma neexee ñel yoo ni ngay dunde baaxul nanu maanu te bàyyi ay wax yoo xam ne amul sens am na sens ba dee sama communication sa communication man wa si nan la baaxule waaw déglu sa communication xam tax baaxul waaw parce que saaga yi ñen ngi nag foo nga saaga seen ndey boo bëggee am na foog nga teppil seen ndey pour ñu mën a dégg c'est ça la amul ay raay man du ma góor jigéen du ma ndayu góor jigéen te du ma féeg te du ma ndayu ragal xam ne laay gémee ku laaj teppi ma ndayu teppi ku laaj xorom pole ma xorom pole waay yow ku laaj nday jumboo ma jumboo ku laaj ndayu maynes ma maynes ku laaj Dakar ma waay yow la nga foo yow yow yaa sa ay millions sa gaal di duul wala yaa am grade di fenn man je suis ambassadeur kat la wax moy sama liguey wax ta ko laaj teppi ma teppil sanday te du mujj nday fenn rang muy tepi, lu ngeen teppi rek ma ñew lo foog du ma la nuyu waxal me lay wax nga wax ko yow laa man sama liguey wax la man rappeur la ma yow ndey yow jigen nga man gor la ama ënd am ama am ama góoru yàlla mais Wagwan. soo paree rek di nga ma may ma wax sëga man mi présenté sama émission man nga bëgg a xuloo ak man. loolu man ka damaa waaru man. non man mënoo ma ñiimantu. man ah, boo man boo ma naree ñiimantu waa. billaahi man dama lay juróo. parce que yonent bi doo ma jiiroo billaahi wallaahi. yàlla mi ma tiim xam na ne doo ma jiiroo yàlla mi la tiim. boo ma naree ñimantu billaahi su ma la juróo da ngay jar tàkk. parce que yonent bi doo ma def dara ay xam nga des foofu ay maccaat ay yax doo ma def dara <laughs> doo ma def dara ay lu gars yi di seen maanaam wàllu wàllu muus moo fay waa léegi yow 10 000 dañ <laughs> nañ yeggali suñu waxtaan 10 000 problème ban son nga def ban son nga mës a génne nag Sénégal bi boo xam ne nit ñi dañ yow yow yow da nga ñëw pour clash ma. waaw mais clash ma ma damay la wala da nga ñëw non ndeyge taxawaay rek wala taxaw taxawaay benn rap bu war a def benn batal. <laughs> wala da ñëw pour wax ak sénégalais ñu xam la c'est quoi le problème. waaw mais damay ñëw waxtaan ah, dañuy waxtaan mais suñu émission suñu émission loolu la dañuy waxtaan ñu ma affronté la nga affronté ma dañuy waxtaan rek. non man ma la affronté du baax si yow de. léegi dama lay laaj yow ban son nga xam ne moom nga génneel sénégalais yi waaw def naa ay son ay son. mais les gars yi si ay côté son ont cassette ko mais cassettes. na ay featuring ay featuring bokk ay compilation wax yalla xam nga ba paré a fort ëpp ëpp bë sax ñi nga xam ne ni des cassette Ils cassette mais kenn xamulen artiste nek Sénégal ñaata fi sen benn son wa sen benn son wa wa son benn son man son benn son rap benn morceau mo bu album ay vie boo ko weedee ma dugal si internet bi nga tapé si nga tape man sama émission bi bi gën a tuuti nga xool fii. wax mhm. yen journaliste yi boog seen appareil maa koy fay. ndax may tourné émission ñu capturé ko da ko seen site chaque fin de mois ñu enquêté ji banque YouTube loolu sama xaalis la. sama émission la man ndayu Miliki sama interview loolu sama barke la du ndayu seen barke man maay fay nday seen appartement yi yéen war waruñu ma yëpp nekk fi nekk comme yenn rappeurs yi su ma neexoon def comme artistes di tëgg samay soirée di paano si xale yi ah di ñam yee di def samay affaire di mos li gars yi di mos mais dama engagé wu nekk ambas fii ba fii lu fay def mënu weng ñun ñu wax ndayam comme la cas de Macron wa Macron Macron comme la cas de Macron Macron mi ngi nii ñëw xool gi saaga jullit yi mais mais na président Macky Sall kaas si loolu man loolu laay xaar na jullit yëpp nekk benn ñu kaas si loolu mais lan mooy ndayu Macron ay Macron mooy kan. Macron bu ñu waxee dëgg dëgg dëgg yàlla moo tax suñu président moo ko war a tontu ndax ndax président bi moo wax te président du n'importe kii Macron ñu la yëpp yëpp musulman yi yëpp Baye Fall yi yëpp Laan yi yëpp Tijaan yi yëpp Ñaseen yi yëpp xolo toto xaadir yi te Macron barki alquranu karim yàlla dina ko woon dëgg bu ko weddee xoolal na laaj Abraha ترميهم بحجارتي من سجيل فجال كاسي ما كون دين دو فوكاي من جبا ان جاهل سي مسلمان أنا المسلم ساخر اسمي محمد عليه الصلاة والسلام ما هو خاتم نبينا وإمام المرسلين محمد نكوي نوي في أدون دي باندي باندلو غراسا ينت يالا محمد صلى الله عليه وسلم مكرو باباي مكرو يايو مكرو مامو مكرو ماماتي مامام غراسا محمد صلى الله عليه وسلم مو أم ñoom la mooy seen yoon si gàmmu yooyu pourtant église baa ngi ni mais chaque dimanche day def day dóor lu muy dóor yenn jàkk yi bëri lu di si jàkk yi nga sallu fu biitukum bu ngi koy tekki si arab ñu ngi koy tekki ngeen julli seen biir néeg yi loolu mooy lan mu te église yi ubbi mais mais problème bi lan la lu ne ñu ngi koy kere naa niveau ordre mondial ay duul ay dóor la yéen ku jàngul ngay nax wala jaahil fil ardi li may wax man ñi ko war a wax mën nañ ko wax mais bëgguñu ko wax ñun na ñu ngi déglu ñun te kilifa yi nekk Sénégal ñun la ñuy déglu mais pas politiciens yi mais pa borom ñaari oto xott yooyu noonu mais pas borom waxkat yi mais pas sàcc yi mais pas ragal yi mais pas défiant yi ñun dañ nekk ay xolal soldat da Dieu missionnaire de yàlla la ñu. waa 10 000. waaw ma bàyyi ma wax ah. non dëgg dafa garaaw. waa dëgg naa la bu baax te li mu wax nii nii sama xol jullit yi ñu am fulla ñu nekk benn say. solidarité. waaw léegi man di ma bàyyi waaw mais man man man man téema téema daanu ci tali bi nag oto jaar sama kaw benn yoon. man xam nga sama problème. waaw mais ah. man ñu xam nga sama problème man ah. Je wax wax ni c'est pas vrai. Je l'écran di ne pas ay théâtre ma dama bëgg que tu Je dama bëgg problème ce bëgg problème avec Sénégal. parce que 10 000 sa problème ak dafa dépassé Sénégal parce que man d'après li gis ñëw di la nuyu nga mais man sama gis-gis ñi xamul mais man duma scénario monté yow waroo bokk ci scénario yooyu yow waroo nangu scénario sax. non xaaral parce que kilifa nga. ci xam nga da nga ma laaj. waaw mais la réponse simple quoi. waaw. sama problème li ma booleeg police mooma boole ak góor jigéen yi boole ma ak Pambay boole ma ak Mañaan Kaset bay jàpp ay kilifa di leen saaga si si télé yi te dafa tax di ma défendre na waruñu jàpp di ñu problème te loo si ku nekk nag yaa ngi yor sa lamine di xotee ko di wax mais Pawlish moo wax. damay dégg ma Pawlish moo wax ci sa problème yéen yéen man dama wax su turam. yéen yéen ko wax la intéressé yéen la intéressé man góor jigéen intéressé wu ma xanaa seqa góor jigéen ma xorom pollet yow laa seqa moom. du ma daw moom su bëggee ay bës wala lu mu kere naka géem du maag moom Baye Fall maag góor ñi la quoi. ak góor yàlla yi. mais du maag caga yeeg du maag ndeyu góor jigéen yi. waaw léegi 10 000 Euh, man euh, dama ñëw laaj la am say rasta. rasta da nga ko war. mais 10 000 looy xool ba ñuy wat say rasta. yaa ngi gis boobu ak 10 000 yow looy dox ak ak ni nga nekkee porteur de voix ci dëkk bi. waa déglu ma rek. non dama laaj dama daal ma tontu doo ma waaxu. dan lay déglu may déglu. rasay yi anam yaa ngi gis boobu bi rasta garde Mbàkke ñoo ko dagg. doo si mbalit mi. parce que dañ la mere. pourquoi mën la garde Mbàkke yee ko dagg du garde Mbàkke sax. kaso njaareem lan ko daggee. parce que dañ la mere. non rek may déglu mën naa wax quoi mën naa dund lii mënoo ma wax loo mënoo wax loo xam ne amul man ragaluma ragaluma li may wax. parce dañ la man bokk maa ngi taxaw na da def ni gis nga Sénégal boo génnee tuqatu bon ñëpp jeex nday si dëkk bi taan bi ñëppay taal ñëppay toox ndayu bon bu ngeen bëggee dégg dëgg ba gars yi nu rey ay di ma def nii ñii ay sàkke ñii ay góor jigéen lanu mais la ma gën a ña ma dégg ba ay pambay naan waaw dimi problème nii mais jaay bon moo gën jaay puub dëgg la. ay diimi rafetalal rafetal fii dara non wuy ma ay doomu aadama lay seetaan ay dafa nekk mënoo nekk benn góor jigéen bu bëgg sonnal waa dëkk bi tux boon moo gën jaay puub jaay puub puub la jaay puub mais nga jaay poon baa nga jaay gerte wala nga jaay sidéem wala sump daa nga jaay ay tool wala oto sax wala kër mais puub ma wax pambay naan waaw fi nga jàpp xool ki ndéwa nak da ngay def bii di def bii di def bii moom moom même bu yàqee deru sax sénégalais yi sénégalais yi dégluwuñu ndeyam nam na xam ndey loolu baax liggéeyante wuñu ndeyu ay pambay wala ko bëgg pambay wala kuy nekk ak maamu góor jigéen yooyu yes mais man 10 000 man man man li ma la laaj ak man li nga ma tontu sax. man yow li la neex nga may laaj. man li nekk man ma amul na bu man li fi nekk laa lay wax. déedéet déedéet déedéet fi nekk. si man posé wu ma la question ci keneen man ci police laa la laaj. mais même soo mais police mooy gars yi rek. Euh, police boobu mais c'est simple. sa yoon nekku ci keneen eh, yow wuy di yàq ndey sama der. ñoom booy xoolal dama ah, sax xoolal mais yaa fi def lu ne commencé gu ma sax commencé gu ma sax si ñoom weta ma wax benn def lu ne weng na gars yi wax ko ah waaw dellu ma wax la ah non nee nañu nag de bu ma tàngal de dellu ma tàngal la ñoom nee nañu wane la ñii dañu mën a fen wane la ñii dañu soxor wane la ñii man li may wax arrangé wu leen wane la ñii ay duulkat lañu mais pour wala ñi ay sàcc la ma xamante saa boo waxee nga dégg information man kenn fekk ma may tox kenn jàppee ma grain. ah loolu da lañ wax. non da may déglu xam nga loo xam li gën a bon Sénégal loolu laa dégg loolu nox euh, parce que Sénégal euh, journaliste yi amuñu programme amuñu programme journaliste yi boo xoolee xoolee télé Sénégal ba ñi ngi seetaan ñu néew la. gars ay canal nañu seetaan. fekkewuñu la bon lan lañ la fekkee kon. danga may déglu wax ko yow fekke woo. dama lay laaj de man dama la laaj fekkewu ma mais dama laaj. waaye képp ku wax si loolu noonu te waxoo loo xamul duul nga duul bu tooy xepp ak koo mën a doon duul nga man dimi pare nee naa la ko borom dëj bi moom mooy jooyu ndayu dëjëm. je suis là jaajëf te ragalul ndayu loolu ñun man da bu ñu bëggee dégg boog man dan ma collé ndayu motif. maa ngi remercier xoolal Cheikh Ba ya mëno for ñaaru jeen nga for ñaari jeen yamba xam nga naan lii maaka moom si ci niku yéeg Jakarta di dem yonam nga ko ko motif nangu ko sax bay mu wax. bëccëg wala guddi non dem ay 1h et quelque la. ci midi matin. ci 1h du matin. di guddi su guddi mais avant quatre heures du matin affaire bi xoolal dafa daw ci reuy xol ci soy parce que nga japp artiste di am cachet. ndey ga tay bu la jàppoon tay suba. Ndeye Gueye Ndeye Gueye yaa may dégg bu baax a baax. maa ngi lay dégg bu baax 10 000. wa temps pass yow nekkoon ba di fecc quoi ba daanu foofu noonu. waaw ah dama lay wax rek ñoom seen liggéey. waaw moo tax yàlla na yàlla doolu sutura. Mm-hmm. danga doon fekk de loolu mbiru yàlla la quoi man seetaan naa ko nii mais dama mere sax mënu si ni dara mais dama mere ñi publier loolu da ngay sax puub puub ñu fexe la jël publier ka ne seen internet ndax am nday fii. man une heure du matin lan ma jàpp boog une heure du lan ma jàpp fekke nu maa grain fekke nu maa dara képp ku taxaw ni man dan ma jàppe grain da ngay duul da ngay ndayu fen di mi para ma wax lii man damay tux man damay tux de nëbbu ma nday damay tux mais dama fekk lu ma def loolu xam nga ku naqaree waxal ni ku taxaw ñu yaa def ñu la nga def ñu la defoo mais loolu mais loolu ma sëf dama ko moomul mais ku ko moom damay déglu xamoo ko moom ndax ndax li ma duggee si roq boobu fekk naa fa ay boy yu nu manoote je te dis la vérité c'est kii dafa xamul mbàkke lu muy rouler xam lu ko journaliste mbàkke yi ni ñuy dunde ak policiers yi moom pour man damay lépp parce dama toog di dama toog man dama gis loo métti quoi dama toog dégg ñuy wax man sama mère mag la muy dégg ñoo si télé yi man bu doon man kese la man bu doon man kese man garaawul quoi mais man man kenn ma si jaaxal kenn moom si xaw a déranger mu ko dégg kenn sama adduna de muy sama yaay. amul keneen mu ko ko dégg baax na ndax xam naa li ma def ak li ma deful mais kenn moo metti koo dégg moom lu ko metti muy sama yaay man sël ndax xam naa fu mu toll si man ak man ni ma mel si moom ak yëg-yëg mi am ak li muy dégg ak li muy noppi ba tey ñaari juin nee nga te nee nga moo jàppee pour man loolu waa jarul sax télé waa man loolu jarul dem ay information di saaga bi foofu mu ànd mu rek kii di jaay ay journaliste mu ngi rek damaa wax mu sonn mënoo jàpp nit ki émission bi xool maa yéene waaj ñii nañ bul saaga ndax dañ laa bëgg nice ma mais yéen yi foo nga def ko <laughs> yéen yi foo nga def ko ñu ragalul loolu <laughs> yes saa di nga àngal ko mënoo jàpp ni ki une heure du matin une nga jàpp ni ki une heure a matin avant quatre heures mu sii si àdduna bi te man àggaguma saxu la njaareem lépp mu ngi xawee si commissaire Mbacke yaakaar man yaakaar yaa ngi jàpp yow man duma Pablo Escobar man duma Prison Break man duma Ino duma Alex duma Bandi rappeur laa damay dénoncé mi xëy na ñii eenal la comme le cas de Ndeye Gueye bi daanu rek ñu jël ko bu ko valoriser def ko seen ay site yaakaar moom mën nañ ko weer ñoom noonu la ñuy rouler la monde bi noonu lay avancé duñu suturaal nit mais mais ñaata kilif na nga fa jàpp ak ñaata yamba ñaata saaku yamba lan fi taal sam waa ji ak jëkkëri prono yi ñaata ko waa góor jigéen ñoo nekk tey taxaw rek ñaata ko góor jigéen ñoo nekk tey fii xoolal kii wa euh, si kaso bi nan wax seen turi nan wax diw la ñaata la vingt cinq xoolal jàpp nañu vingt cinq xoolal góor jigéen nan nan waxu turi nag par ndànk ñu diw diw diw diw man dañ man man dañoo jaar si digg bi Mouhamada Fall dix mille problème jàpp nañ ko ak saaku yamba mais ni ku ñu jàppee saaku ndax di nga am 15 jours waaw man Cheikh Ba moo may jëlal avocat maa ngi koy remercier di ko nuyu te pour man sax loolu xool ko jaroo ko woon ndax ma li ndax li ñuy wax dan dafa nekkul si man ma taxaw bii jubalu Mbàkke baay nga libéré nit koo xam ne ñu ngi ko jàppee xool 27 paquet de bon nga bàyyi ko mu ñibbi

di ko wan garde yi naan sawaay nekk ne di kan damoo waaw loolu laa lay déglu ma dix mille yaakaar moom bu jibile man su ma gënee damay jibile ndayam dix mille nga yaakaar ni waa léegi euh, posal nga yaakaar ni euh, euh, c'est bon ci li nga leeral askan wi ah parce que leeral nga leen nga yaakaar ni est-ce que du dafa am haine bu la policier yi jàppal ba moo tax mu demee noonu noo du policier parce que policier pie mënu quoi mais tey li ma si jàngaat ah, ah, ah. waaw waaw mais am nañu tane parce que dafa am ñoo xam te ni ñoo ëpp expérience quoi. dama si jàng lu bëri quoi si xam nga def toujours man. man xam naa ne tey man gëm naa ne ñoom ñoo ëpp sax expérience ñoo gën nekk nit. mais pour ces raisons yi c'est pourquoi xam nga raisons yi te bëriwul ay presse amul ay waxkat Dakar loo fi def mënu weng bu soow bu siiw kon da ngay

te Jéelu mbake man leen ma gën a bon si Jéelu Mbàkke ñoom respecté wuñu doomu adama man sama premier jour waa biir mbake xam nga fanaan fanaan duusu puubu kaay laa fanaan billaahi billaahi wallaahi man musuma si kaso Mbàkke man dama wax man ma dama wax man si détenu yi benn par benn nga expliquer sénégalais yi ñu comprendre waaw loo tax loo tax ma ni exclusivité loo tax ma man dugg fa waaw bon na si man mais gën na si sénégalais yi parce que naa leen wax police Mbàkke bu ñu bëggee dégg-dégg ba ma wax jéelu Jurbel jàpp nu ma ay garde fa nekk ay garde yu baax tiba ndax gis naa bu fa duggee ñoom nin ma yërëmee tiba ak ni ma doon jàppalee ak ni ma doon dalalee dama doon waxoon ñoom sax ba yenn garde yi sax am na lu ma expliqué ñoom mënuñu si dara parce que garde jàppul kenn police moo nekk si terrain bi mhm. mooy dem songu gars yi mu jàpp la am na policiers yoo xam sax ñoom bi gën a gaaw boog boo doxaanee sax seen gel dañ lay defeere ndax ñoo gën nekk bandi no ci te fekkoon du bandi bi policier bi du fayeeku ñoo gën nekk bandi mais fekkoon du bandi bi policier bi du fayeeku ndéygéey yow jigéen nga xam nga li may wax yow du ñàkk yow mos nga am waxta faru policier eh, non non mos nga am mais am nga jëkkër la yàlla mais mais avant nga am jëkkër avant nga am a nga am jëkkër amoon nga far di sànni sa job di faynal di pawnal tu vois boo gis na boo bëggee dégg dëgg boobu jeelu mbake jeelu Mbàkke ak police Mbàkke billahi lii xam tam wax lii le président Macky Sall mu dimbali leen waaye oto bu ñuy livré gars sax amuñu ko oto xam lu dugal lu ñu dugal ñun ah, ay tata ay Njaga Njaay dugal fa ay naaxu jëlmaan yóbbu leen xool gi fa ta kaso Mbàkke bi ñu ngi fa dugg ay minu ay kele ñu dugg si foofu gars yi war nu nel gaan bi ma jàpp il s'appelle Siteu wa turam xam na ko mais boobu su la gars yi wër te kooku loolu lay liggéeyam ah parce ñu bari ñu ngi na gars yi xam ne ba lu lu mbër kii benn genre du sax police ndax police def loolu kii benn genre policier bu nekk Mbàkke da lay jàpp nangu sa xaalis nangu sa portable nga wax mu jaay la bandi mënoo si dara ndax laal waa c'est pour les badoo yóbbu la di feera la bàyyi kaso bi pour baadool la man sama premier jour boobu bi nga bëgg a dégg bàyyi jeelu Mbàkke pour su Mbàkke su duusu puubu kaay bi laa fanaan man ak ay lu tax nga fanaan foofu amuñu nekk pauvre amuñu dara nga dugg jeelu Mbàkke si kaw ay zeng la bunti néeg bi wera saaku soble la ay zeng mais foofu ñu koy woy xool ki fuur ba te képp ku den képp ku dëkk Mbàkke ah, maa ko dëkk Dakar mu jaar mbake boo ko nee xool kii Fourba te ba moo nekk si jeelu mbake dafa boo taxawee ni yow wa si ay ñax ngay taxaw ay ñax ndax tàngaay bu fa nekk ndax ñàkk ndax ñàkk respecté doomu am na paa yu fa nekk sax ba am na ñu fa xëm ba ñii dañu bëgg xool pendre seen bopp man seekoon jàpp na ma ba ma dugg fa du ma ko xam mm-hmm. mais ñoo ma jàpp bëgg ma toroxal bëgg ma dugal quoi bëgg ma xaw ma daal sàkkal pexe lu ñàkk fayda lu ñàkk fayda bàyyi waaw même bu ma jàppee sax ñaari gen yamba ñaari gen du fee ñaari gen bàyyi jarul nga si wér dix mille pam si wa si télé yi ñu naan ay tës ñi di profito taxaw rek non xoolal man maa war a man maa war a nday wax parce que ñoom ñoo doon bu ma wax lu ñaaw ñoom ñoo doon wax ndayam di wax man nag maay maay wax ndayam man avant de parler il faut référer ndayu siir moo ba même suma ma deewee sax wala day dund ndeyam di muy problème wan na ko de cokk la da wat mu saqaat ndeyam nga wataat mu saqaat nga wataat mu saqaat ndeyam rëñ muy sëq ragal ma loolu yéen a fi nekkoon di ŋaang di wax di xotteeku tey nag maa war a wax dégg naa lépp mais mun ma dara lu waay neex mu ngi doon wax wax ngeen lu leen neex jàpp nañ maa saaku jàpp nañ maa nii may ngi dégg sax wa ben gel waxoo journaliste man gel boobu gelo gel boobu noonu xam ko baxna te bu ngox turam man dama wax ciaga te buguma la wer yow mom nan ay dimi faram dang ko jappé ay yamba ay sako ni yow la wax ndaw si buguma wax sa tur dama lay sutural may xam nga ma xamna la bax xam nga ma xamna la wa ki la ñam motax ma ñam la buguma nak nday wax ku nek nek télé di wax di yak der di problème di problème am day yaay yaay du dund du xol ay télé image nek ci télé di wax lu ñaaw man man wa est-ce que lolu timil mille est-ce que lolu man limay may injustice lay kaas timilé wa wa injustice ngay kaas mais su fekkee yaa ngi bàyyi sa yaay xel il fallait que nga maytu yeen tamit yenn cadeau yi ku def meul moytu amul cadeau eh. yenn cadeau yi nga diko genn sa yaay diko deg tamit aussi timil lolu rafetul est-ce que du policier bi la japp da la japp pour

ñoom na na ma jaxase benn dëmm ñoom la yàllaa ma yor te xalaxel mawut waxaat fii ñëppay dee yow même boo amee sax même boo nekkee chef un jour vingt raté wa tu vas mourir waaw koo mën doon da ngay dee même boo dàqee jàppe da ngay dee même boo nekkee bandi dangay ngay dee même boo nekkee ibaadu da ngay dee man yàllaa ma sàkk yàllaa ma keree lijjantiw ma ndayu nit ko xam daf may lijjanti li den tuuma mo ndelo yene a fi di ngang di dul di wax du xotteeku ñu laaj ma damay wax ndayam nga ma ni lu ngeen fokk ku nekk di dul, ku nekk man dama sonu ci ay question yi ci bopam ku nekk di fen yor sa bagge du ubbe ko di dul nan sa jappé na que lii képp ku wax te waxal leen lu jàppee ko da ngay dul man demi pren dañuy fen dañu bëgg jaxase ak adduna bi waa mais ñu ngi bëgg ñu gëna bëgg ba légui wata fan ñu ngi gëna bëgg ba man du man ndey taatu kenn nit ku yaakaar mën nga ma wàññi rek sa xuur yi ngay wàññi mais déranger ma maître. waa dix mille ah, dama doon euh, dama doon. fekk <laughs> yow yow. ah yow yow li ma doon dundee li ma doon dundee nga xamul li ma dal ko li ma métti xamoo ko. xëy na góor laa muñ naa parce que yàlla moo ko inna allaha ma sabirina parce que ngi wax ko yaa ngi taa quoi muñ naa ma gis maa ngi dox de mais ñoom li ma teg mu teg sama kaw yaa ngi sotti mu ngi man même boo ma jàppee yow naka ngay taxaw biir parc bu Diourbel taxaw si biir jéelu Mbàkke bi si si kaso Diourbel libéré ñoo xam ne ñu ngi la jàppe ay 27 paquetu yamba man ñaari jeune nga bëgg ma sànklu bëgg ma def ay mandat dépôt di ma bëgg def ni wax waa renvoi nga yaakaar yow ba fay génn di sibile ma nekk biir jéelu Mbàkke nekk xool nekk fa xool ko chef de chambre bu rentrée ñëwee xam lu may wax

c'est bien mais loolu nag yow boo yow nag yow nag boo nekkee si benn side rek doo ko wax te temps bi passé quoi. man man boo ma boo ma wax man. mais parce que man yow man fi tolli dama la baye sa nga def émission bi man actualité bi la lay wax instant bi actualité bi la bëgg ñu waxtane ko actualité bi moy <coughs> gouvernement bi ñu changé ak Idrissa Seck mi ñu nommé parce que sénégalais ñu won loolu parce que dafa am ben cadre bu fi Idi waxone yagul dara euh, légui yow do gissé loolu. xam nga fi lu fu waay wax rek waaye wax na lu gën a nëb. Mhm. Souleymane Ndéla njaay lan la waxoon Macky Sall Sénégalais yi dama nekk ñaan bu leen benn politicien dof loo. Eh, man eh, eh, man waat mais dama Idrissa Seck de. Mhm. Idrissa mu ngi si fin carrière mag la. bu ñu ko falee xool que premier ministre man je suis d'accord c'est normal. te mën na dimbali président sax aussi mën na xam nga affaire yi. Il y a lii parti affaire affaire de pouvoir affaire de Sénégal Je bu constaté bi c'est bien ndax ñi mais euh, euh, Sénégalais xam nga sénégalais compliqué. mais ministre de l'intérieur bi euh, c'est normal parce que les deful. non man non non mais classe dof ndey ñu brigade de recherche. li fii lu faay wax rek ñun xam nañu def ñun avant ñuy wax ñun ñu wax nañu ndey lépp. mais ministre bu bees bi nag ki ki remplacé Aliou Ngouille xam nga ko. mu tudd. non man xaw ma ko de. non man waxoo turam man xaw ma turam. ndax ministre yi bare mënu ma ñu rek xam. turam ñëpp Omar Sarr tamit bu Ablaye Wade. waaw Omar Sarr c'est bien xam nga tamit ñun ñëpp xoolal opposant loolu mais damay ñaax benn affaire rek quoi. Mhm. xam nga def xam nga président mi ngi def lu nice mi ngi def lu garaaw aussi quoi. Mhm. mi ngi effacé di créer. mais ngi doon xeex démb tey ñoom bu ñu lay jëlee bu subaa ñoom combat bi ba koy continuer quoi laa bëgg xam deuxième wa question bi quoi troisième mandat wu le président Macky Sall ñu xool ni ku nu doy ñu takk fi quoi tu vois troisième mandat le président Macky Sall dañ ko ñaan te yàlla moo tax quoi bu ko sax fooyee bu mu bokk sax bu mu bokk si ay conform am moom na valider ñi nga xam ne moom war na leen xool de wax si le terrain ñu campagne ñu bañ a mën na waaw yeneen dëkk yi dafa jot a passé yi ngeen dëkk yi bàyyi te ak guerre yi ngir yàlla may ñaan ba politiciens yi nanu may jàmm fekkee bëgg nañ suñu réew nanu politiciens yi dimbali ñu may nu jàmm defar waa réew mi jàmm bañ fi ndi ay guerre parce que a ate élection du dara te nguur du dara adduna nag ñëppay dee tu vois bëgg nekk xool ki président bu mu tax bàyyi nga bëgg tayal sa peuple bëgg leen faat waaw euh, Euh, dama dégg sànq ci sa biir wax nga ne Cheikh Ba dala jëlal avocat sa diggante ak Cheikh Ba lan la. Cheikh Ba Messi nga xamante nit ku baax la ku bëgg waa Médina la. ku taxawu waa Médina la tamit aussi ku xeebul waa Médina la tamit aussi. nit ku baax ah, man man man xam naa ci mm. dara. man musuma ko rencontré musuma ko gis nii benn yoon lañ séenante ni mais nit ku baax la ku mën a jàppale ni parce que man xam naa ci dara waaw. man deuxième mandat bi nii man su ma demee ba wooteel Macky Sall ndax gisuma man li ma doy grâce à xoolal Cheikh moo tax ma jàppale woon ko ànd moom si campagne dañ ko bëgg nag waaw dafa baax na ko te moom du question dara du question ni dara mais mhm. Cheikh Ba dafa nekk nit ko xam ne dafa yëg nit waaw dafa yëg nit te moom dama koy seedeel moom dafa baax ndax am naa problème xoolal Jurbel ndeysaan mel ni ma xoolal Cheikh Ba te ak ni adduna bi tey ah ni ni monde mi tey ah j'ai ma famille te dis la vérité tu vois mel ni Cheikh Baab laa xam ne moom moo ma jël avocat ba pare dugalal ma xaalis di ma woo di woo gare yi di dégg di ma bàyyi euh, di di waa di waa di nemmeen koog man. ndeysaan waaw loolu nag kon donc loolu dama ko si ñaanal yàlla quoi na nga ni. non loolu non sama diggante moom changement réew mi la quoi man je parle de réew mi. mais maag Cheikh Ba maag Cheikh Ba la li ñuy gém tam koy gém mais maag réew mi réew mi la. bu nit ñi ñu wax laa ñu wax ko instant bi ma nga de. Mhm. ñëpp a jëm si troisième mandat Macky ndax dëkk bi lii. may ñaan ah, ah, politicien ngir yàlla fi sabilillah euh, may profiter ci occasion bi du nuyuwaat sama DG rek sama DG sama sama frère sama xarit ah chéri madame Diawo bàyyi Seex yi ah bàyyi Badou waaw bàyyi Zeyna ak Jayna ba euh, Mamboy Diawo impôt domaine maa ngi lay nuyu DG bu baax a baax a baax di la jox sa waay di nuyu grand pape Singapour ah di nuyu sama fans yëpp yëpp yëpp fépp fu waay nekk rek maa ngi lay nuyu ak képp koo xam ne rek yaa ngi may jàppale ci biti ci biir ak ci biti ci zahir ak baatin ci barki Cheikhul Khadim nuyu naa la bu baax a baax a baax di nuyu sama jëkkër papa booy jinne bu baax a baax a baax di ko wax yàlla na ko yàlla may ndam yàlla na ko yàlla may ndam ci combat bi mu jëm ci barke Seydina Mouhamed waaw di nuyu maam booy jaaw a DG bu a baax nit ku gën ku risque ku xeebul waa Kolda ku bëgg nit l'homme social te boole woo dara ak wax waaw man yaa tax Cheikh Ba Messi ñeme ma Mame Boye Diao di nuy Cheikh Ba secrétaire Cheikh Ba Messi bi madame Diop di ko wax lu mu bëgg yàlla na ko suñu borom defal 10 000 looy tàggoo. waaye lu may tàgg mooy toujours ah di ñaaxaar rek état bi tamit ñu bàyyi xel ci nekk ñu nekk si kaso yi ñu bàyyi xel si fee yomb yi ñuy différé doomu aadama yi ndax bu demee bu demee bàyyi xool si rabal di dugg si kaso bi. ay 1500 tax ñu lay différé di bàyyi xel ñi nga xam ne ni ñooñu ñoom ñooy am de tenue yi nga xam ne ñoo nekk si si régions yi ak villages yi. ni ni jaay askan bi doole ñu bàyyi si xel xam ne ñëpp ñoo far quoi am na loo xam ne damaa jaru ko waaw di ñaax tamit Sénégal yi di wax ak monsieur le président Macky ngir yàlla mu dem ñoom wala droit de l'homme droit de l'homme si moom lay waxal sama dernier moo si droit de l'homme dem leen jéelu Mbàkke ngir yàlla ngeen vérifier gars yi seen fee yi waaw ngeen attendre te jëlmaan yi ku si nekk bul waxee li ko fa dugal waa mais ay jooy mooy dese ndeysaan billaahi wallaahi euh. waxuñu dëgg na quoi gars yi dañu wax lépp mais ñun ñuy wax dañuy jàpp ay con ndax li ñuy wax arrangé wu leen dafa dama damay damay profité ci occasion bi nu nuy sama benn xarit tamit aussi suma benn xarit suma nit suma xarit suma nit sama lepp borom Suisse yaay Jézane yaay Mansour chéri Alex Daba cham. borom ndey ju baax ji ñu wax Roqaye cham Daba cham. Euh, dila la wax jerejeuf nit ku bax nga ku gën nga ku ñak ñaan nga dila la wax jerejeuf Daba cham. ma ngi lay gërëm dila sante chéri Alex yaay Jézane yaay Mansour Gorom Mati 10 problèmes kontaan naa sama xol sedd na ci yow ndaxte nag euh, émission bi génn nga li nekk sax sa xol c'est ça qui est important mu le li ci xolam nit ñi xam parce que man tay la mu ko mësa a ah, problèmes face à face donc mu nekk lu mu nit ku nit ku nit ku neex a bëgg tamit aussi nit koo xam ne day kaf day reetaan te ma waa Médina bëgg nañ ko mais émission bi moo laaj loolu il faut man may tàngal moom muy tàngal man sama émission noonu laa ko man noonu laa ko noonu laa plus plus confrontation plus plus xam nga bijou bu 2S day def confrontation man plus plus plus laay def man xam naa ni ñoo ñëpp yaa leen gën a dee man xam naa ni dinañ ma dóor ci plastique euh, duñ la def dara <laughs> yow jigéen nga boo xam ne ni mm, man bi ma la commencé xool chiffre yàgg na quoi gis naka jekk yaa ngi si gém bi si si artiste quoi di bégal nit ñi quoi def plateau show doo complexe man dama ne seetaan doo nekk mel yeneen gel yi yow seetaane bu na ñoo yaa ñoom bokk leen tu yaa ngi def loo xam ne nit ñi def nit ñi ko yaa ngi fettal Sénégal yi toog di waxtaan nit di ree xam nit ñi du ay riboo nit ñi malaaka yéen yi sax mënu ko ah! dama la bëgg da nga bokk si ñun sama site bi Africa Africa rek Africa rek. rek may ko benn freestyle. rang e yeman wagwan similar sen e rajtando ɓe kab dansal e ten thousand matala from lakal rang muy africa rek kase dong dong rek wagwan mim ja merci 10 000 problème sama xol sedd na ci yow ndax yow takk naa la xarit da ngay ñëw ba géej waay seet si ma gunaas da ngay ñëw ba gunaas seet si ma ndax xam naa ni euh, dama lay dama lay dama lay dama lay yàqale ay Ibou Sène ay Petit Dieye ya ay Balla ay Ablaye Naar ay Bira sama champion bi maa ngi ñëw naa fa ñëw ah, waaw ay ay ay ay Taal ay Beuz ñooñu laa lay ay Bokar ah ay Issa ñooñu laa lay yàqale ndax ñooñu say xarit la ñuy war a doon parce que ñooñu ñoom ay nant lañ ay ruyal lañu quoi waaw xam nga sama yaay waa géej waay la mais te ngay bàyyi maire bi xel tout le temps ah, de ko bàyyi xel boo demee bay wax yenn kàddu yi na ci sa xel dem ci maire bi quoi mais boo xoolee li may wax yëpp ay nday faka tamit lamayo ndayu mais mën nga fecc mbalax lamayo fii moo xam ne affaire sàmm de ñi ñi nga gën a ñi nga gën a séen ñu gën a metti ñoo mm. daax mbalax ñëwal et puis may kii benn affaire quoi ngir yàlla di ko demander le président Macky Sall quoi waaw pour mu libérer asoon Diouf man maa ngi ñaan xool maa ngi ñaan xool justice bi ñu ngi ko koy ñaan maa ngi ñaan xool justice bi mhm. le président Macky Sall Assane Diouf mhm. citoyen sénégalais la ko comme ñun nga libéré ko libere booy jinne ñaar ñi moom ngi libéré leen ko man maa la ñaan lii te yàlla moo tax quoi monsieur le président nga libéré ma benn question bu am solo waaw yow tey bu la président woon tey président woo la audience ni la damaa bëgg tey nga ñëw ñu toog ñu waxtaan nga jàpp ci liggéey bi nga maanaam maanaam maanaam nga def benn mouvement mouvement boo xamante ni takku liggéey jàppale président ma Sall lañ wax ci troisième mandat mu woo la ci njëkk ak teraanga par respect di nga ko wuyu ji par respect. non man nag heureusement ba man ma lépp lu may def rek damay sóor d'abord la population quoi boo gisee nag ni ma mel instant bii ba léegi aw ma li am nii aw ma yenn teraanga yi parce que dafa am loo ma ne ko ma ko man mënu ma nii quoi nii. ba taxaw naan ay eh, diw ma la nii ay eh, maa ngi nii non non. mënu ah, ñoom ñoom ñoom mën nañu loolu <laughs> quoi. parce que ñàkk <laughs> non du yow sax parce que ñoom ñàkk nañu jom ñoom mën na ko def quoi. <laughs> xam nga am na yoo xam ne fa nekk am na yoo xam ne day nekk nit nit ku nekk mu mën na loolu quoi mais su ma woowee su côté job mais pas ay troisième mandat wala quatrième mandat. non non mais. mu euh, woo su côté job damay dem déglu su côté liggéey lépp loo gis su côté toog dafa am dafay am préposition après lu lay expliquer tu

bu nu bëggee bu nu wax dëgg dañuy waxante dëgg ñaar moo am ah, ñaar moo ñaar Barça wala Barsax ne t'en fais gaal nga dugg si gaal amoo lool lekk muy benn machine su paanee nag xamoo noor xamoo nawet géej ñi xam géej day xam géej mais ñi xamul géej xamuñu géej jaru ko yow boo demee Espagne jaar si gaal yi sa papa nga bëgg a rey ak sa yaay ndax ñooy nekk bàyyi di xalaat ñooy jàpp ñooy julli Nous ñaan yàlla te demuñu fenn te ñu gis lépp te seen bi kër yi. jaru ko nan suñu Nous ñu yalla may ñu lek bu rew sax ndayam nan tok fi suñu taan jaajëf nous ah Nous nak mom man dama tay dama daj tay dama gaay yi ah, li la leen sommes ah, fi ci Medina tok ak 10000 problème waxtaan mu li nek ci xolam. j'espère que sénégalais yi comprendre man exclusivité bi tey ñëpp am nañ tey ñëpp dégg nañ 10 000 problèmes mais fu fekkee kàddu yu jub na euh, ñu ngi ñu ngi jéggalu du ñu ni yàlla suñu borom la su fekkee am na dara dara lu ci dëng ngeen baal ñu àq jërëjëf ba ci beneen numéro incha allah ak Africa rek incha allah.